qui est institutionnel et puis mm -hmm. aussi c'est quelque waruñu ko banaliser. Euh, Mansour bu ñuy yem ci tout le temps ñuy alerte amul benn daan bu ñu teg ñi koy def ndax dinañ ko bàyyi. non souvent sax mu am ay daan xëy na ay jamono comme Sëñ Saliou euh, Guèye li mu expliqué daan la te lu ñu mu daan gis la. jamono yu yàgg gis naa ku ñuy simmi Sandaga. Mhm. mais question bi di Fatou Abdou dafa junj lu am am solo lu Sénégalais ba bàyyi xel muy kan moo sol tenue bii ak kii mooy kii. Mhm. souvent day jaxas day day. compliqué même yow journaliste bi nekk sur le terrain souvent nga dem ba ci corps yi bu fekkee am na manifestation da nga leen di jaawale. am na ñoo xam ne ñu sol lenn loo xam ni tenue police bi nga xam lay doon wala tenue gendarmerie bi nga xam lay doon mais benn pantalon kaki ñuy sol xëy na benn bu ñuul wala t-shirt bu weex. Mhm. man arrivé na ma ma doon couvrir début 23 yi ci temps Abdoulaye Wade 2000 2011. benn policier fekk ma taxaw après mu weq ma ma génn sama carte mu soog a xam ni parce que parce que man ne tax daw ma. dama daw sax comme journaliste mais li tax mu bett ma euh, mooy xaw ma woon ni policier la ndax man daanaka li ma sol moom la sol. Mhm. benn genre faaru mbaam yooyu ak benn benn benn tenue. alors loolu benn benn définition la bu ñu war a leeral ci mhm. ban moment la policier bi di participer pour sol xeetu tenue yooyu nga xam dafa mel ni bu civil. loolu benn la bi ci des mooy élection locale yi muy jige si chaque candidat. am nga droit protéger sa sécurité. da ngay dem fu mel ni par exemple man sama gox quoi lay jël exemple moom laa moom laa xam du ma tudd keneen di tooñ par exemple mu am ñaari candidat Yewwi Askan Wi. Mhm. Benno Bokk Yaakaar wala keneen ak keneen. léegi bu fekkee kii am na ay moyens recruter ay nit yu sol ay pantalon jean wala ay kak yu mu leen utal. Mhm. ci couleur boppam keneen kii itam ut ko. mais ci biir communiqué bi bu ñu ko génnee ci jamono jii lan mooy cible bi Ousmane Sonko bi def campagne ñi ànd ak moom. Bougane bi def campagne ñi ànd ak moom yéen tenue la ñuy sol. Mhm. tenue yooyu aussi ki nga xam ni dafa jàng garde reproche nekk am am carte professionnelle am kooku ban tenue la war a sol pour ñu xàmmee ko ni kii moo yor sécurité candidat bii. Mhm. cest dire bëri yoo xam ne war nañu ko leeral. pour ba ñu indi nuage ak tiraillement ci bu ñu eggee ci jamonoy campagne parce que campagne baa ngi jege si. Mhm. jërëjëf Mansour ñu dem si seen rubrique seen xalaat. tey dama bëgg ñëw ñu waxtaan ci wàllum carte d'identité yi nga xamante ni Macky Sall mi ngi defar te joxe bi am njuñ njaaj ñun tey fii ci commune bu Yeumbeul Nord mun naa wax ne njuñ njaaj ji dafee ëppee dayoo ndax lii man mooy sama carte d'identité nationale bii mooy sama carte d'identité originale ñu dafa ma sama bureau de vote mu nekk école Malika récepteur bureau numéro 5 ci yoon ba ma noon jot carte d'identité dama ci waroon a yóbbaale ak sama récépissé gis nga récépissé bi ab ASP moo ma xàmmee ci koñ ba yaakaar na suñu waa kër ay apéris leen moo tax mu dem tànn ko ràññee ko xàmmee ma ci nit ñi mu ñëw indil ma ko suñu kër te temps wadd li amoon mooy ba bëgg a jot sa carte d'identité da ngay dem police bàyyi fa sa récépissé ñoom nag li garaaw ñu ngi dugg ci kër yi di récupérer sa original bi mooy carte d'identité bu njëkk bi bii dañ koy récupérer bu ñu jox duplicata ba pare dañ lay wax naan ana sa original bi jox ñu ko parce que boobu dafa ñuy jum ci imprimante bi li ma leen bàyyi loo xel mooy que képp ku ñëw seen kër naan jox ma sama carte d'identité wala kaay ma kaay ma jox la sa duplicata nga jox ma sa sa carte d'identité lu bëloom ko nangu asalaamaaleykum waa D-Media man la Ousmane Taye maa ngi fii Nouakchott di leen sant di leen gërëm si seen surtout kii ba Mansour Mansour Diop ah, ak Pa Assane Pa Assane moom macha allah woon dul libu seen bi ñëpp kontaan si man de kontaan naa bi ñëpp kontaan si man de kontaan naa si bopp ni ko D-Media daal la ñu am seen TV daal la ñu am ndax seen journal moo riche xam nga wax journal yomb na waaye tas journal bi moo jafe te yéen moom ngeen def tas journal état Sénégal nag moom bu leen jàppalewul dañ leen di a fay sax yéen par weer ñoom ñoom ñoo leen waroon fay ndax a ngi leeral askan bi kon état moo leen war a fay yéen waaye nag xel tey nag man li ma dégg keroog waa ngir wax naan euh, waa Sonko ñoo nekk impôt et moo sama xel sama xel tey na ci bëgg leen jaxase ak Macky Sall waaw loolu yëpp day am xam nga noon moom noon kese lay doon waaye mën nañu xaar ñu ni directement gouvernement la ñuy joxoñ waaye fekk na ndeysaan du mu mën a encore xam nga nag lu ñaan naan bëñ weex na li tax euh, làmmiñ ni euh, yàlla def ay bëñ defal ko miir waaw làmmiñ danger la plume danger la plume muy bind ak làmmiñ kon ku jóg di def rek yàlla nga def lu baax Sénégal gi nag yaakaar naa ku fi bëgg def lu bon ah sa kaw lay këpp yaakaar naa de waaw sa kaw lay këpp kon nañu yéenante lu baax di def lu baax salaamaaleykum wa rahmatullah ñun waa D-Media ñoo ngi leen di muy te di leen ziar tey rafetlu baax baax na ngeen ñu taxawee quoi ci côté askan wi ndax manqué nañ média bu ñuy jooyal jamono ji lool mais gis nañ seen média vraiment taxaw na ci côté askan wi di leen jooyal baax baax seen i jafe ak jafe-jafe yi ñu dund man fi may waxee mooy cadre président de la république bi nga xamante ni dem na France di fa wax mu mel ne cadre yoo xamante ni def naa ñàkk bind la texte bi pour wax ko répété ko ba xam ba mokkal ko doog ko wax wala kàddu yoo xam te fa mu koy wax tamit gisawu ci ak ñoom àndaloon parce que demee banaa man kenn musuma man xoqut la rawat demee ba yor ba yor lépp nekk sama loxo kon yow je pense kon yaa ngi xalaat ne kon yow am nga ñu la xoqatal kon kon yow yaa ngi ko fit amoo fit fit noonu ñi nga yaakaar mooy armée bi te armée bi yaakaar naa tamit armée bi républicain la te xam ne Sénégal macha allah gàcc ngalaama kon yaakaar naa président bala mu woon yëkkati loolu vraiment waroon naa mën a waxtaan ak encouragé am ñu ko wër ñu xelal ko waaye man Macky Sall ñu ko wër wallaay la nga sim ma xam naa bu wàccee la doo xam ne gars yi bëgguñu ko woon xaalisam rek lañ bëgg xaalisam rek lañ bëgg te bala mu ci xam dara yàlla na ko yàlla def dimbali ba matal mandaam ba wàcc boobaa dina xam ne gaa yi bëgguñu ko de ngoog eh, di leen di jaajëfal bu baax a baax yéen itam def leen ni ñoom ngeen yónnee ñu seen ay video ci whatsapp bu groupe des média di jaajëfal itam El Hadji Mansour Diop Fatou Abdou Ndiaye ak itam Serigne Saliou Guèye jox leen dig dajeel lëkk incha allah Sen TV. Bienvenue chez vous. deuxième édition du Forum et Gala de l'intégration économique africaine sous de son Excellence Monsieur Macky Sall, de la République du Sénégal et de la Première Dame Madame Le e FOGECA, opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, organise la de son de l'intégration africaine le samedi 27 novembre de grands Seiko Langa Langa à Dakar. Pour cette édition, un vibrant hommage sera rendu à Feu Thione Balago du Ramdan. La soirée de gala sera animée par le couple malien Bassirou et Ami L'incontournable et l'exceptionnel Golden Boy de la musique sénégalaise Wally Balago et d'autres grands noms de la musique africaine. Rendez-vous est donc pris avec le FOGECA le samedi novembre à partir de 20h, réservé au 33 83 ou le 77 432 74